bi Sénergie ñëwee eh, pour euh, amal ay activités am ñëw waxtaan ak population yi euh, sous la supervision du représentant de l'État ah bi lolu amé ñu signé ak ñom protocole ni bu ñu dawalee ba am juróomi at dinañ ci protocole bi nga xamni signé nañ ko dañ fi defar maternité mais ñun ñu xol ni xaj na at bari na et que euh, complexe bi nga xamni mom lañ bëggono a il fallait que mu am une maternité pour nga xamni lolu lañ sàkk woon ci nous biñu wax ak aussi Nous ñu am am vision bi d'accord ci ak ñun def ñu leen ci parce que euh, def nañ ko té app bi donc quelque part avons une obligation def ko mais également la municipalité demande leen ko ko donc nous fay ni li olof montre yu heure.

waxtaan ak service technique yi tënk këyit yi ba ñu wax ne matente ñii ak ñi la war mel ñu doog lancer appel d' yi dénk ko entrepreneur bu dëkk ci gox bi mu tabax ko tabax bu mucc ayib bañ ko tabaxee ba pare ñu ne doyul il faut que ñu dolli ci nag équipement yoo xam ne mënta ñàkk mooy contribution bi ñu def tey Euh, mun mun na yokk comme ni ko maire waxee am na yeneen matériel ay échographie ak radiographie yoo xam ne mun nañ ko ci yokk waaye loolu yëpp dañ ci dañ ciy gën a waxtaane lii ab tàmbali la ñun ñu ngi fii ci gën kaa gàtt ñaar fukkat ak juróom dañuy ñaan population tamit ñu patienté chaque année di dinañ def initiative yi ni mel waaye dafa fekk na yëpp xëyul sotti waaye nag di delloo njukkal jigéen ñi ci mois d' octobre bi ñu nekk ndaxte tey le 31 octobre tombé waral ay gaaf octobre rose donc xel yi la ciy dem di di leen ñaax ñu gën a góorgóorlu gën a yokk pas-pas bi et gën a farlu ci euh, visite nataal yi. pour gagner le taux de mortalité infantile et le contribution. Nous mettons en place un comité de sélection des initiatives RSE nous dire que rek suba peut-être population priorité Ben di waxtaan ak priorité maire préfet en fonction de budget bi ñu yor nous priorité bi. Euh, donc nous nañ li priorité pour euh, pour l'année prochaine gëstu bi ak yeneen structure yi mu nekk ay partenaire technique financier yi nga xam ne mun nañu dégg lu baax la ñuy def ñu ñëw jàpp ci mun na nekk tamit yeneen corps d' état moo bi dañ koy yaatal.